إليك وحدك فارقت من سواك فكن بساك خيدي إلى هداك وليكن ربا وليروى النسير ولجميع المسلمين يا بصير وكشر الخيرات هذا البلد ما يتبع عمر ما ما يجيب فتكيت أما قال قرآن كي مهم أمون نكو يجيو وطكو بني آيه آوه سمر كي لب مهم يجنين كو وطكو بني آيه آوه نانا ترب kenn sëñ Touba safar gi gars yi dund nañ ko naa cant nañ ko yëg gi tamit ñëw nañ fekk lu rëy gars dalal ñu mbokk Baye Fall xam nga ñu rek comme nañ ko faral dundee rek mbokk murid yi comme moom daw ñu dara la ko dara moom sëñ Bamba rek lañ ñor. ñu ngi jógee Dakar. Dakar waaw. mën ngeen ma wax seen yëg-yëg sa màggal Touba. ah ñun daal kontaan nañ trop ñëw nañ fii dalal ngeen ñu ñun daal kontaan nañ macha ma bi daal neex na torop xane la màggal moom xel xalaatu ko boo ko wax ko sax bàkkaar la wax ko wax ko rek bàkkaar la wax ko moom wax ko rek dafa loolu kenn xalaatul loolu te kenn du ko def lu jëm si sëñ Bambale gars yi rek lañ si dee waxuma la ay daw corona ak lu kenn xamul gars yi dañoo dépassé lu war boobu maanaam si murit talaluñ loolu. bernde lii lépp daal macha allah rien à dire bu suba ñu xaar màggal gi incha allahu rabi ziyaare borom baax yaa ma xam. màggal bi ñu ko annulé woon lan la. waaw troisième guerre mondiale mooy am. waaw corona bi bi màggal gi ñëwee si ko gëj a dégg maanaam sëñ bi sifaay na ko bu yàgg. ci bàyyi na corona sëñ bi daa daan corona bu yàgg maanaam corona màggal xajul ci corona ci ko gàddal ndax màggal bu muridi la te corona day xaar waaw amaana boobu. waaw maa ngi tudd Mame Diarra Dieng. jóge ba Louga. Eh. pour màggal ci bis bi. delluwaat di sant sëñ Tuubaa rek yàlla fayal ñu ko kenn mënu koo fay wax dëgg yàlla ñu koy sant bu baax a baax jàmm ji yëpp moo ma sëñ Tuubaa rek moo fi nekk tey ba suba rek ñu koy sant bu baax. te di ñaan yàlla di ko liggéeyal jàmm ji yàgg Sénégal màggal gi mënuñu ko anale ndax ba sëñ bay tukki kenn anale tukki bi daa dem tukki ñëwaat ñu di ko màggal sax di ko sant bu doon dañoo anale tukki bi mën nañoo anale màggal gi mais anale wuñu tukki bi dafa dem tukki liggéey suñu borom ba a yàlla fayee ko li mu ko fayee li kenn mënu ko anale yàlla a ko fayee yàlla ak ko jox kenn mënu ko anale sëñ ko fay dafa liggéey yoon ba ñëw liggéey yu ba mbindee di ko di ko analeel màggal gi la liggéeyal a teg fi mu am kenn du ko am fii ba ba am fi ñu ñëw ak ñi dem ak ñëpp si yem Ahmadou rek moo fi ne fi mu ne. ñu ngi jógee Gambia sanca ba ba Touba. sanca ba Touba suñu ba Touba la tudda Gambia. loolu dara war de. waaw waaye Serigne Touba ñu ko jaral Cheikh Ibra Fall. waaw te ñun taalibe Serigne Modou Ablaye Fall Ndar rek waa Ndar Fall lañ. waaw sax suul na dañuy ñëw maagal nag. Serigne Touba moo ñun digal bàyyi Gambia ñëw ba Sénégal because Serigne Touba jaral nañu lu nekk. soo moo tax ñu ñëw jaral nag lu ne waaw lu ne la ñu jaral nag depuis Gambia ba Touba nii waaw ñu ngi sant sëñ Bintu sëriñ Sey Bintu Fall ñu ko sant bu baax a baax di ko ñaanal yal na fi yàgg lool sëñ Sey Jombo yal na fi yàgg lool sëñ Muntaxa yal na fi yàgg lool barke Sëriñ Touba doon إليك وحدك فرغت من سواك فكن بساك خيدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنسير ولجميع المسلمين يا بصير وكشر الخيرات آذى البلد ورسوا والتكفي النكد والتثبيتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس ذهبا يا كيم كرى النصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسودان في سرك والمغرب والبدان وسر ما في الأرض ترى والسماء من شائر وباطل هكتما